Kembali to Vigilaran SM. Abonen, te klik di post notifikasinya. xaar suñuy vidéo jërëjëf. jërë ngeen jëf mbokk internet yi dal leen ak jàmm ñu wax ci comme image yi ngeen di gis nii mu nekk loo xamante ni lu kenn mësul gis la wala bëriwul lu ñu koy gis fi nga xamante ni moo di ci biir Sénégal muy guddi goo xamante ni dañuy toog ci buntu kër yi daal di taal ay sondel di ko téye muy tàkk. kooku ngeen gis mu toog kenn dootu ko présenté bi nga xamante moo di Sénégal kookoy Guy Marius Sagna nekk député waaye nekk tamit activiste fu ñu toog noonu nag mooy kët gi nga xamante ni mooy Hannibal Djim moom moomee nga xamante ni mu ngi bi jamono ji ñu toll nii ginnaaw bi nga xamante ni joxe nañ ordre ñu def ko vingt heures gis nañ ne nag bi mu jotee daal nañ koy commencé waaye manifestation bi nga xamante ni nag moo waroon a am mën nañ ne moo undu lii nii yëpp te manifestation boobee nag mu julloon am ginnaaw bi nga xamante ni mooy préfet de Dakar tere na ko. ñu waroon am nag manifestation pacifique yoo xamante ni si réseau yi wuute lañ ko waroon a amalee fu mel ni Kolda waaye fi nga xamante ni tamit moo di Saint-Louis Tivaouane ak Ndakaaru waaye manifestation yooyu noonu yëpp daal na xam ne préfet yi tere nañ ko moo tax ñu changé li nga xamante moom manifestation bi nag def ko li nga xamante ni daal mooy teg si yi daal di taal sondeel di jàkkaarloo moom muy tàkk. mu mel ni kon nag xeex bi nga xamante moom la ñu doon xeex ba léegi moom la ñu kon ne di ko xeex mooy que ne ñu bàyyi ñi nga xamante ni ñoom la ñu woowee détenu politique yu ñu tëj ci nga xamante ni moo di ci prison bi.